Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna comme ni ngeen ko gisee saa su ne rek tey ñu ngi parcelle bu ñu nee parcelle nekk à secteur bi nga xamante ne moo nekk Dior tey ji li fi xew tey ji mooy euh, événement bu mag. koo xamante ne si sa koo xamante ne yàgg nañ depuis temps booy ba di mu doonee mag mu nekk actrice bu mag a mag actrice boo xamante ni lëmbee na fépp ci àdduna tey jii mu xew la tey jii benn événement bu mag muy concert fi nga xamante ni mooy parcelle tey jii nag euh, matinal bi nii nii nii si suba si nii daanaka gars yi aj nañ ba pare xam nga gars yi def nañ benn genre fête bu ndaw ci suuf xam nga fête yi xam nga bégal gars yi concert bi nag guddi gi la mais tey dañu leen di teeloo wan li nga xamante ne tey moo fi nekk tey ci biir matinal bi li ci des nag après ngoon gi la ñu wan leen ko carrément sama réalisateur aw tey dara du sedd tey man ak yow fii tey dara du sedd sama gars ñu dugg ci biir tey mu nekk loo xamante tey fête bu neex la tey ci biir fi nga xamante moo di parcelle tey concert la mais tey dañ leen ko defal journée maanaam suba si ba guddi gi dafa leen lu nice mooy bàyyi leen ci biir piscine bi ñu fecc def leen neex Fiska jege si ma ma xool jege si ma. Fils na waar. maa sant rek. ci loo maa am jàmm. tey la moo la gën a neex tey. ah te am mbégte xol bu sedd rek. waaw. tey mu nekk concert guddi. tey jii matinal bi nii tey ñu defal leen benn genre mat da boo xam ne gën a dugg ci biir bëgg ak seeni i woo. daa mel ni da ngaa ñëw wóor na ah non kontaan ko mel maîtriser rek laa kontaan nii. non bu teg loolu. ah non lu raw a teg ah, a ah. ah, na nga ko bàyyi fee rek xam nga dañuy fee aller da ngay loolu sax dama ko bàyyi sa bopp de. ba nga wóolu. bu kon baax na mën nga génn tey ji guddi gi tey dara du bu naree sedd yàlla nañ ko annulé. nga ne bu bu naree sedd yàlla nañ ko annulé. mais lan moo tax waa Parcelles ñu tàng. ah mais buñ tàngul du ay am yoo baax. ah loolu du baax baax bi sax. ah loolu koo gis nag Parcelles lay ndamoo ko a parce que Parcelles dafa am lieu boo xam ne ñëpp lañ ko bëgg. Ah. muy piscine bi may mi même beneen même soirée muy atiné. lépp dañ ko bëgg quoi. kon baax na sama réalisateur. waaw maa ngi jàmm baax. tey lu waral fête bi tey ji ak bande. tey moom ah dama pare pour génn relax quoi ànd ak sama gars yi sama gang bi quoi RFG. sa gang bi nga àndal quoi. waaw sama gang bi laa àndal RFG dim quoi. mais mais gang yi dafa mel ni dañoo laa ko subir ana wooy. non wooy bi moo tax. tey concert bi tey guddi gi tey jii suba si nii. ngeen xaw a def lu nice indi teg xam nga war a bëggee ak seen i booy ci tey jii ba tey jii xam nga ba tey jii dara du tàng ak yooyu. non non instant bi moom tey moom dañoo fas yéene ñëw ko nice wan ne booy Zémé ni duñ dara booy yi concurrence ak ñoom dañ leen bëgg a wan duñ dara quoi ñun léegi boo xalaat dañ koy dugg. mais lu waral léegi milieu bi bëri concurrence. maanaam milieu bi fii nii dafa luxe quoi instant yii comprendre bi ma waxee fii dafa luxe mais ñun nekkul ni à chaque fois benn lieu rek la ñuy di nekk. mais yëpp la ñu bëgg di dem. la moo tax yéen doon parcelles yi ngeen. non non non xam nga rek ñu affaire concurrence la quoi. dañu concurrence suñu biir. entre nous loo. kon baax na ba ñu kanam tuuti. waaw waa si kanam baaj. dafa am léegi léegi léegi lu ma bëgg a def mais dafa am ñuy làqu mais foog ma jël. waaw noonu la loolu la mooy yoon gars yi làqu dinañ génn bàyyi wane seen. Ah, loolu la ma def. jo maa ngi lay ziar. Ah, da lay ziar Ndiaye. maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax. mais dafa affaire bi affaire bi commencé na ne tax na demagul fànn. waaw gis nga ne li ñëw mooy daax li ñëwagul sax saa yi kaay yooyu soo dugg fi billaay. Ah. barki Serigne Bamba. mais concert bi guddi gi la su ma si nii yéen a ngi bëggal gaay. waaw gis nga ñun ifti time sax la ñuy ñëw nii maanaam dañoo temps bi dañu mooy daax sax moo tax ñu ñëw heure bii nii. dama doon waa passé buñ doole. waaw noonu la demee waa passé moom ah, moom ñoom ay noobu lañ police rek lañuy nekk. moo tax ñu jógee bu sori mais waa Guédiawaye nee na ñoom ñoo leen dee ñoom ñoo leen ëpp doole quoi. waaw waa Guédiawaye dañuy xaar waa Guédiawaye moom dañuy. non bu teg ah, loolu. bilaa dañuy loolu ba tawee. waa Guédiawaye xamuñu noos. Ah. nii. mais grand tey dafa teel a jóg nga a loolu bañ a loolu. bu teg daa daa lu ko waral nag. Ah. waaw waaw léegi nag li ko waral nag ci loolu laa bëgg ñu ñëw xuus si en fait euh, piscine paate la wax donc piscine Pathé boo xoolee tey jii jeunesse bi ñoo ko moom te jeunesse bi j'en fais partie quoi et que artiste la am naa droit divertir loolu mënul ñàkk donc boo gisee la moo tax ma gën a ñëw sax c'est à cause de ma sœur quoi mooy Sistafa donc dafa doon benn euh, xale bi nga xamante ni donc dafa gëm rap quoi donc tey jii boo gëmee rap donc ñi ngay àndal ñoo si mën a jàppale ba nga am li nga bëgg quoi donc mënuloo ñàkk man en grand frère ma ñëw teewal ko quoi même bu nekkoon sax samay rakk laa fi fekk wala samay doom mais de toute façon je ferai de mon mieux ma ñëw xam a defaale sama participation quoi donc aar dafa metti donc ñi nga xamante ne ñoo nekk sa entourage ak famille rek ñoo la mën a jàppale quoi donc moo waraloon tey suñu teew ak sama gars nii ñëw rek ngir jàppale ko si jour bi quoi. tey ñu gis ne Sidy Mohamed nit ku gëm boppam la ah Sidy ba ma koy xam tu tey tey jii mu organiser loo xam ne tey lu jaaxal ñëpp la tey gone yi ndaw yeeg mag ñëpp tey ñëw wuy si ko tey ji maanaam moom couleur bi mu am ak booy tey ba waree lii am la fekk def lañ bëgg a xam lu ndaw mhm. waaw si safa dafa doon nit ki nga xamante ne donc du question de li ma ko moom ndaye bàyyi moo tax ma koy défendre quoi mais moom boo xoolee sax donc góor yi góor yi la gën a xaritoo ko jigéen ñi quoi parce que wàllu aar moo mel noonu boo demee ba doon benn rappeuse am en tant que jigéen booy fréquenté ay góor dañ dem benn moment yenn yenn yenn jigéen ñi dañuy siisu boo xoolee fii nii tey jii mën nga compter ay copinam quoi donc moo waraloon man tamit ma def sama mobilisation àndal sama quelques gars ñëw ngir sukkali mais moom la nit ku baax la quoi te gëm boppam imagine toi xool ko tey fële dafa ñëw si programme bi pour rap mais bàyyi na yëf programme bi mu ngi ci leneen maanaam leneen maanaam mooy lan moo ngi jàppale gars yi si jaay comprendre nga pour bis bi gën a mën a màgg quoi donc loolu yëpp gëm-gëm la te bu gëmuloon boppam bu ko neexoon mënoon dem dugg si néeg bi làqatu di la mais loolu yëpp defu ko wàccee boppam ñëw di boyal fourneau xam nga di jaay ci jus yi ngoon bu sañsee génn doo ko xàmmee kon loolu noonu xam ko kooku gëm boppam la en plus que wàccee boppam la. kon maanaam euh, dama nga wax benn wax joo xam ne am importance mooy tey jii ñu bañ a bu ñu organiser benn programme dañuy topp di laqatu di sañse di jaay star moom tey jii mu ñu duggaat ci biir waañ bi ba pare di gën a téer war booy yi comme maanaam tey est-ce que jotul lekk yi ak li moom exemple. waaw waaw loolu c'est bon ko dund ak moo tax ma la donc am na ñi nga xamante ne bu ñu amee programme dañuy ñëw si programme bi laakatu di jaay yëf VIP du genre wala di jéem a ñoddi non non fii ñu ñëpp lañ dañuy jàppalante rek tey muy tey ji foo ko fekkee fu muy jaay nii da ngay kii du artiste quoi te boo xoolee ngoonoon bi moo fi toj man gëm naa ni lay ngoon bu sañsee génn ñëppay apprécier donc aar moom da war a wàccee sa bopp donc yàlla bu la tàccoo war nga fecc mais fecc bi du question de réy-réylu wala a mais am na ñi nga xam ne dañuy dem si benn bërëb di wane ne maay diw maay diw te loolu amul sens quoi. comme Ba la ñu lay jaajëfal. waaw jërëjëf ñoo far yow amal jàmm yow. nekk la si kontaan naa. sama réalisateur dafa am loo xamante ne nag dañ koy làq tuuti ba ci kanam tuuti dafa am loo xamante ne ci kanam tuuti dina leer ci kanamu gaay kan mooy Cissé Dia koo xamante ne ba muy rab du tey ba muy rab démb la mu bàyyi lépp tegoon ko ci suuf ñëpp na bàyyi na fekk bàyyiwul dafa nekkoon ci luq bi ak tey ak biyam rajo li si kanam tuuti rawati fa di ngeen gis lu bees tàq ak si safa sama réalisateur may tuuti am nu dugal publicité te dellu si waat tuuti. mën na dem Sénégal sax eh mun ma eh bàyyi liggéey des fois ah mu yàq waaye mu yàq eh sa dama ko bàyyi may def ma pour lu daal sax liggéey ba ci mata bi eh ba ba ba ba seeni député dëgg dëgg di ngeen a am unité jigéen di fight jigéen di win jigéen di jéem bu ba doon héroïne jigéen di fight seen ak ak yelleef ba am seen gëdd mën a def seen wareef docteur waat def ci sa bopp gën a takk sa sër di ñafet sa bopp bul xaar jëkkër di la defal lépp war ngaa mën a amal sa bopp lépp am fulla fit jom am ngor doon jigéen ju mën góor bëri feeling mën sa boor man lay déconne. bëgg naa nga màgg ba jëriñ yow ko mbokk àdduna tey ñu ngi parcelle ci camp sapeur tey lu alaa dawme moo fi am depuis si suba ak léegi ak kan si sa fa koo xamante ni ñun ak ñoom depuis démb la du tey kon tey ji moom bu xewle tey ji ñun dañuy teew ci moom def ak moom li nga xamante ni moom la indi tey kiñ toogal nii dafa bokk ci staff bi nga xamante ni mooy staff bi nga xamante ni euh, je mooy staffu si sa fa dama koy bàyyi ma nuyu ndaanaan maa ngi lay siyaar. delloo ziar bu ñu la. yaa ngi am sant yàlla bu baax a baax. événement bi dafa ala doom yi depuis si suba ak léegi seen secret bi lan la. secret bi xanaa gërëm waa camp sapeur pompier parce que lii su amee c'est grâce ak ñoom di leen remercier de passage di ne merci monsieur Thiam et l'adjoint major bu fi nekk. di bëggee képp sapor pompier bu fi nekk di leen jaajëfal di ngeen kontaan seen taxawaay bu baax a baax di leen euh, dig daje encore ba beneen yoon encore incha allah mu dàq ci journée bi ñu am ni tey. tey jii lii moo nekk seen première édition wala bii moo nekk seen deuxième édition. non bii mooy suñu deuxième édition donc euh, comme li ma koy waxee rek sunu papa yi ñu fi toog ñoo ñu yombalal lépp muy Père Thiam. Moussa Ndoye ak euh, Major Kabou di leen di féliciter au passage parce que ñoom ñoo ñu encadré ñoo ñu won yoon bi malgré suñuy kilifa lañu suñuy mag lañ ñu déggal leen malgré aussi des fois y a aussi parce que les nerfs sont tendus donc euh, di jégaluwaat seen côté parce que suñuy kilifa lañ dañoo teete pour ñu mun a avancer donc il y beaucoup de choses ak euh, devant nous aussi kon qu'on doit chercher donc euh, ñu bàyyi ko seen loxo rek. tey euh, si sa Fa dafa làqatu woon toog na ay at yoo xam ne kenn gisu ko Cissé Fa ay fan rek ñu jékki-jékki gis réseaux sociaux yi télévision yi Cissé Fa jékki-jékki génnee sound boo xam ne dafa cartonné àdduna maanaam da ngeen ko rënkoon ci ruq bi di ko liggéey liggéeyloo. wala da ngeen dem ba ci biir xam li nekk ci moom nga ne ko carrément démb da nga doon rap ñëpp xam ko ci yow léegi da nga war a dellu sa pour askanu Sénégal xam li nekk ci yow wala loolu yéen yéen a ko jugaat ngir teetewaat ko ngir gungewaat ko ngir mu fas yéene jàkkaarwaat ak gars yi donc euh, Sistapha suñu jigéen la artiste la aussi du artiste bu ndaw donc dakaar Art dafa nekk loo xam ne structure bu gën a rëy ñun dañuy chercher ay di liggéey ak ñoom du moom kese euh, Pipa ngi fii am Amsababa Satou et beaucoup d'autres artistes aussi donc ñu leen di jaajëfal di ne artistes yi nañ ñëw ku mel ni Fayta Rap euh, fils de Benzo ak yeneen ak yeneen artistes ñu ngi fi ñoo xamante dañ leen làqatu mais dañu leen bëgg a génnee comme si Safa nu mu génnee sur scène ñëpp xam leen loolu moo nekk suñu objectif mooy Dakar Art Dakar Art maanaam dafa yaatu bàyyi ñu parcel bàyyi ñu yëmbal bàyyi ñu Grand Yoff bàyyi ñu partout partout partout toujours ils sont là ils sont les bienvenus chez nous franchement. ok macha allah yéen a ko dégg noonu mais tey jii yenn artistes yi nga xamante ne tey jii dañoo bëgg a jur ngir bëgg a topp seen ginnaaw ngir bëgg ngeen teete leen artistes yooyu est-ce que bu ñu paree pour ñëw pare ngeen pour ubbi leen ay buntu. comme li ma la wax léegi rek ñun on est là pour tout le monde bàyyi ñu kii bàyyi ñu Massamba bàyyi ñu personne fu artiste nekk rek dañ lay contacter ñu seeti la. dox ay jéego pour ñu mën a waxtaan ak yow nga ñëw fekk si ñu parce que loolu mooy seen métier defuñu la lulul art mooy culture boo déggee culture mooy c'est la musique dafa yaatu donc on est pour sax donc on cherche des gens pour venir ñu liggéey gars yi xam leen parce que léegi boo xoolee musique bi dafa dafa suulu léegi surtout les rappeurs parce que boo xoolee daanaan yi nekk ci kaw defuñu seen wareefal ñu gars yi parce que boo xoolee tey Faytal rap il def na def na beaucoup de choses dans la musique donc banlieue peut-être ñoom ñoo ko xam mais bëgg nañ moom tamit mu génne comme international wala national comme ni ñuy gisee si Safa muy génnee national international loolu moo suñu objectif si si Dakar Art. ah yéen a dégg noonu daanaka lii la lii la gars yi soxla woon ngir bëgg koo xam tuuti lu waral projet bi xam naa nag du ñàkk ndaxte lu ko tàmbalee tey ba jëm décembre xam naa ne pare ngeen ngir toj àdduna daal. bien sûr parce que programme yaa ngi suñu kanam parce que suñu paree fii dañuy attaqué Kabana aussi. Kabana club. Kabana club waaye. foofu ndaanaan ba fa jaar moom suleeku ngay doon. foofu de. dégg naa ñu ne ndaanaan bu suul bu duggee Kabana da ngay mujjee suleeku. kon gars yi ñoo gars loolu la ñuy wax loolu da koy bàyyi am sa bobo moom xam na si dara fekkee suul na wala ndaanaan la gën a doon te gars yi ñu ngi koy jaajëfal de passage donc pare nañu pour liggéey ak artistes aussi. Donc, euh, bienvenue à, à, Dakar Art. Pour tout le monde, les portes sont ouvertes. Déjà, je fais toujours ce qui est fait. Moi, Père Cham, comme je le toujours. Euh, Moussa Ndoye, Major Adjudant, Chef B. Franchement, c'est grâce à eux que lignes sont C'est grâce à eux. Madame, de sunu poche, de sunu doole le pignon là. Donc, euh, on les remercie de passage, surtout les staff de GFR, comme Ousmane, comme Pipa. Eh, su ma juumee c'est sama xol dafa fees quoi. da ngaa kontaan daal. vraiment wooy dama kontaan trop trop di jaajëfal sama DJ DJ Dani daf ñu accompagner dans toutes les émotions. ñoo bokk koñ mais xamuma dama koo xam bu baax. ndaanaan la nag gars yi ñoo ko xamul parce que dafa laqatu. bis day feeñ. mooy suma DJ préféré. ma ne Kouthia Salam Vision Kouthia Kiki TV foo ma dëjaa da feeñ. te muy dëgg donc euh, Dani sunu nit la. sunu doomu nday la sunu xarit la donc bàyyi ñu benn yoon fay ñu ko dara pour te dire vrai dafa ñëw def dooleem indi matériel am toog jàppale ñu nee na ne man si dakaar Art laa bokk malgré am na labelu boppam mais daf ñoo jàppale pour musique bi gën a avancé pour mu gën a law parce que boo xoolee public yi ñu fi nekk yëpp yëmbal parcelle Grand Yoff Médina ñëpp ngi fii moo tax ñu tuddee ko dakaar Art moo tax mu ubbi lañ lépp daal. mais ki créé tur boobu kooku bi baax la de dakaar aar maanaam Dakar bàyyi woo kenn. laajal Ousmane Ousmane moo créé loo moo ko <laughs> Ousmane après naa ko boo wëri Ousmane nga laajte la jëlee Dakar aar dina la ko wax. c'est que damay bañ nag depuis gis nga loolu moo loolu la ñu ah. parce que artistes yi franchement amuñu benn problème jàpp nañ si événement bi bu baax a baax a baax a baax te incha allah dañu dugaat yëmbal. comme li ma la wax sànq rek faytal rap moo toog ne mu may dëgg bu baax daf ñoo jàppale si wàllum sponsor bu ñuy wax Tampico moom mooy dox ci jéego yu am solo si côté boobu noonu te ñu ngi koy remercier pour mu mën a tegaat podium boo xamante ne pour artiste yëmbal yëpp parcelle géejewaay golf bàyyi ñu kenn sur mon sera évité incha allah. yéen ko dégg kon gars yi di gën a jaajëfalaat bu baax a baax. te di leen wax ne nag euh, incha allahu rabbi affaire bi képp ku ko bëgg a seetaan bu la neexee da ngay tapé Salam Vision incha allah di ko am boo tapé Kiki TV itam di ko am parce que si ñaari seen lay daw parce que ñaari seen yi bees na parce que léegi ñu ngi lëmbe àdduna mais nag instant yi ne ci këram tuuti am na ñaari surprise yu fi am yoo xamante ni ay tiktokeur ak koo xamante ni suñu yaay lañ koy wax tamit fecceel Wally Seck connaissance boobu lan la. waaw comme li ma la wax rek xam nga aar dafa yaatu donc bàyyi ñu kenn kooku suñu mag la suñu xarit la. donc su ñëwee dafa war a ñëw xaaruñ saa ñu koy woo donc ndaanaan bés bisam la donc ndaanaan kenn du ko xaar si yenn yi donc il est toujours bienvenu si Dakar aar kon léegi ci kanam tuuti. incha allah concert bi rajo. tey dañ koy toj. si sa fa. ñëpp si sa fa. Sénégal. waxuma la aduna rek waa international ñoo leen di seetaan di leen jërëjëfal waa TV ya di leen euh, kontaan si événement bi ngeen découvrir nii ni ngeen couvrir surtout lii dafa très c'est très important ñu am ko si yéen parce que li day permettre la gars yi xam parcelle xam piscine bi xam lu fi nekk di leen jaajëfal di rafetlu seen seen liggéey franchement merci beaucoup. li war a jàppale gi nag mu ngi nii quoi ñu ngi toogal si Safa ñu ngi toogal ndaanaan boo xamante ni depuis suba ba léegi dafa laaxat nag jël photo bi xam nga. di biij ak di bés gaa yi yaakaar ne kenn ko feeñal fat foo sa dañ koy feeñal moom xam na loolu bu baax a baax mais balaa maa ñëw si Safa dama koy bàyyi moom mu nuyoo ba pare ndaanaan dama lay bàyyi nga wax ji nag du bari ko xam nañ ne maa moom suñu gerte tey fii tey dara du sedd ndaanaan nga nag ci biir ndaanaan ponkal nga nag ci biir ponkal yi mais tey événement bi tey ci secret bi lan la ah secret bi juste euh, mooy bëggante suñu biir d'abord ba pare jox joxante respect tamit suñu biir d'abord loolu lañ def ba pare maanaam loolu moo ñu may lii tey waaw maanaam bu respect bi amul woon bëggante bi amul woon du yegg si fii tey quoi waaw. tey ñu gis benn secret bu ndaw ci suba da nga làqatu jël photo xam nga si meeku teg nële xam nga mel ni bokkoo ci événement yi mel ni yow nekkoo artiste bu mag quoi wàccee sa bopp comme Baye Fall quoi di photo di bëggee gars yi di kafakaree te ku la xool xam ne ndaanaan nga di def comme ni ngay def. mais tey jii secret bi nga xamante ni gars yi ñu nga koy conseil nga koy doxale tey lan la. dëgg la maanaam liggéey moo jiitu lépp maanaam dañ nekk ay dóorkatu waar avant ñu nekk artiste moo tax bu ñëwee dañuy wane si maanaam fi ñu nekk yëpp dañ fay génn daal wane ko ni ñu gis loolu xam ne ñun nekk ñu di nekk di woy kase mooy nekk suñu métier. ñu ngi si photo bi ñu ngi si vidéo bi ñu ngi aussi si t-shirt yeeg yëpp maanaam milieu art daal daal lépp lu ko lëmb rek ñoo ngi si biir daal. waaw c'est ça tey Dakar aar ci biir Dakar aar ndaanaan fa nekk li tax ñu man ko secret boobu lan la ku ci nekk am nga foo teg sa morom muy respect bi cër gi fulla ak fayda bi maanaam li ngeen doxalee tey ba secret boobu yëpp am lan la. maanaam dañoo nekk frère et sœur ba pare parce que nga nit ñi bu ngeen nekkee frère et sœur ba lépp lu ngeen jiital rek respect bi mooy dugg. te respect bi moo dugg suñu biir ba tax na tey ku gis rek GFA da nga yaakaar ne sax ñi ay mag rakk lañ wala ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk kër a que sax bokkuñu kër. mais maanaam déggoo bi ak jiboo bi moo tax ñu yegg fii tey maanaam ku ñu gisee day yaakaar ne ñoo bokk alors ko sax amul quoi mais maanaam bëggante bi ma la wax sànq moo fi ñëwaat ak joxante respect maanaam bu amee rek famille day dugg te instant yi léegi GFA nekkatul groupe famille la waaw ku gis rek di nga xam ne GFA famille la daal. sa diggante ak fa sama lakkal la. yaa ko lakkal loolu leer dëgg la yow moom yaa ko lakkal daal soo ba léegi maa ngi gis nga koy grillé quoi. non faa moom ma lakkal. <laughs> <laughs> non DJ bàyyi la yooyu bàyyi la yooyu waaye. Sistafa sama jigéen la sama jigéen la sama xarit la dañoo boo groupe bi man xam nga man damaa ferme wu quoi te man mooy loolu man su ma miinul nit mënuma dugganteeg nit ñëw nit dugg nit mais moom maanaam si ni muy duggee maanaam moo tax ma ñemee ko parce que dafa ñëw ubbi boppam su ma kiiwee mu may tooñ ci kaf ak man maam loolu tax tey ñuy minante minante yenn minante yi daal waaw loolu la daal. waaw mu nekk nit ku baax tamit ku oyof. non moom moom yaay faal la ko waaw waaw mais tooñ daal moom rek mooy catam na bàyyi tooñ waaw. kon baax na xaajal ñu xusee gi dugg ci moom sama réalisateur dafa am loo xamante ni foog ñu xaw koo si tuuti si sa fa depuis démb ku ko xam xamee woon ko loo xamante ni lu tàng la si sa fa jékki-jékki kenn gisu ko kenn dégg ko mais ñu jékki-jékki rek gis si sa fa di lëmbee télé yi si sa di lëmbee rajo yi si sa fa di lëmbee sax tiktok yi. ma déglu ci biir ñoom ñu naan la ñu ne ma non Cissé Fall dafa indiwaat leneen lu bees tàkk kon nag Cissé Fall dama koy bàyyi mu déggee xool ñi nga xamante ni ñoo koy seetaan mu am na ma nuyoog ñoom Cissé Fall ci loolee. waa am ñu leen di ziare di nuyu gars yi fi teew yëpp di leen béggee bu baax a baax di nekk euh, di ne kontaan nañ ci teew bi parce que déplacement yombul te temps amul gars yi ziare naa leen bu baax a baax. waaw lii événement bi nga xamante ne moom la GFR teg parce que GFR am na Siteu am na Moussa Baba am na Kaana am na Prési am na Sato am na Pipa loolu mooy GFR ay artistes lañ aussi ñu ngi ci label dañuy xool naka la ñuy mën a jàppale yenn booy en plus ñun ñu ngi def suñu œuvre bopp parce tamit nit doonee yow da def dara. di xool yow sa yoon rek day doo gestu ñi nga xamante ne yaa leen yaa leen sut ci benn instant mën nga leen jàppalee ci dara parce que solidarité dafa am solo ci nit voilà lu weesu loolu nag bége maa ngi nii ah. mais si safa dañoo jékki-jékki dégg si safa lëmbee ci télé si safa di lëmbee ci rajo yi ba TikTok sax léegi dafay dugg si safa xolal mel ni moom fi mu nekk nii moom Sénégal benn artiste nekkatu fi ku dul moom mais si safa mais saa wu ne b yi nga jot a génnee si safa lan la. waa gars yi <laughs> non son yu bees yi tey dinaa maye ñaar benn bi nag maa ngi wax ci dund bu seer bi parce que dëkk bi dafa metti sobla yi seer na nen yi seer na ah e gars yi mburu bi seerul café yi seerul sandwich bi seerul café bi cher na nen bi cher na. waa gis nga. ñoo bëri. Macky na wàññi mbir yi soble cinquante mille kilo mille franc nga bëgg ci jaay chan ah may nee sa mburu baa nga génn waaye gars yi génne xaas yi waaye. waaw noonu la léegi nag bu ko defee deux sons yi benn bi dama si wuy Choosy Nice ndax son Choosy Nice ñi ko doon xaar bëri na génn na tey laa koy njëkk a joué fii allah rabin ñu choosir nice ba mu neex te gars yi dama bëgg ngeen fompat dal yi ba mu nice ci kanam ñu choosir nice ba mu neex lu weesu loolu nag ñu daal di ñëwaat encore ci son dund bi cher na waaw ñu ñu ñu ñu pëndal wala boog waaw ah, mi ngi noonu ñu mën ko dugal ci tiktok yi instagram yi ak affaire ak yeneen affaire foog ñu coow en tout cas parce que ñun artistes yi ñoo mën ñu ñoo mën a waxal ñi nga xamante ne mënuñoo wax te jot nañu wax parce que suñu gémmiñ bi pour wax la xool li xew ci dëkk bi te neexuñu ñu di ko wax di ko wax di ko joytu pour mu dee parce que néew di doole yi nekk nañ fi am ñu ngi leen di jàppale mbënn bi metti na fii ñàkkul ñi fi toog ñëpp am ci koo xamante ne këram mu ngi taa wala bunt këram mu ngi taa dafa metti waaw ah, yéena ko dégg si safa li nga xamante ne jot na ko leeral tuuti parce que artiste nii ne ko maanaam da ngay gëstu sa population parce que boo leen gëstoo li nga xamante ne da leen di metti nga xëcc ko indi ko waxal leen ko bu ko defee ki nga xamante ni moom moo jiite réew mi mën a faj loolu parce que ñoom ñoo fi nekk ñoo xamante ni tey seen kàddu fi ñu ko dee seen kaddu adduna bi yëpp xam ne ñoom ñu ngi wax parce que ñooñu loolu la ñoom la ko yàlla may mais si sa fa dernier kaddu bi nag xam naa ci keneen tuuti fii dana wàcc dina lëmbee dina rajo xo ndax sama ndaaraan moom fi mu nekk nii moom comme que fi nekk nii photo yi moom rajaxe na ko ci suba si <laughs> ma kose mais am na nag ñaari surprise yoo ne ñu ngi fi am nga xamante ni mooy yaay booy mu ngi ñëw léegi ak tiktokeur yi nga xamante ni moom depuis suba ba léegi nag ñoo lëmbi gayen xoolal ñoo lëmbee fet bi léegi nag di leen xamal nag incha allahu rabi si sa fois am na feneen ak feneen foo xam ne mu ngi koy waajaat loolu nag képp ku ko bëgg a xam dangay ngay topp ci renseignement yi topp ci gars yi ñu leen di jox ay waaw di leen jox ay sart quoi boo ko defee nga ne su boobaa yi ni ngeen ci bëgg a leer yëpp di ngeen leerlu mais si la faat léegi dañuy bàyyi nga préparé tuuti ndax xam naa ne ci kanam tuuti concert bi dina rajoxoo incha allah waaw incha allah waaw foog ñu mën a dem ranger wu xaw a noppalu tuuti mooy loolu noonu yeneen gars yi mën a ñëw ñu mën a def suñu concert te bii nag nekkul bii pare bii bu jàllee dañuy nekkaat ci yeneen ak yeneen ak yeneen dañ koy tëggee fu ne ak feneen ak feneen ak i feneen gars yi nag bëgg na ñu am information boobu la ñu jéem a créer benn groupe whatsapp waaw ku ci nekk boo neexee mën nga fi bàyyi sa numéro bu ñu nekkee ci événement yi surtout artistes yi ñu mën leen yéegal ñu jouer ci raison yi ay Kolda Matam Kédougou affaire yooyu noonu bu ko paree bu bu ko defee nag mooy loolu te si kanam GFA defe naa am na beneen concert ah nga waaw noonu la demee bu ko defee fayatal rab maa ngi koy nuyu bu baax a baax waa yëmbal nuyu naa leen bu baax a baax a baax fayatal rab te nag di leen wax leen affaire nag euh, bitigu laay dina fi jaar si kanam incha allah rabin ah mooy loolu jaajëf merci beaucoup. si sa faana surprise bi la da nga koo teel a wax nag quoi mais coo jubul mais laay bégit xam ngeen ko baax a baax koo xamante ni moom ndaanaan la ci biir ndaanaan ni surprise la yeneen ak yeneen dina am ci kanam tuuti mais ba léegi sama ndaanaan. ci kanam tuuti dañ leen di bàyyi ngeen ñëw rajo ko mais nag après ba boo yéegee après après photo boobu nga doon ñëw di rajax rajaxe ba après du ñu xaw a kii rek. non non du si def dara incha allah dañu wane ne fata fu ñu ñëwee rek dañ fay wane ne ñun fa la ñu amee doole daal incha allah. kon baax na ba ci kanam tuuti. waaw incha allah di gërëm waa parcelle bu baax a baax sama waa koñ. ñoom ajaana fi naata kaja seen waa kër ñoom seen mbàkke 18 bi yëpp gërëm naa leen di sant aussi waa Dakar Aar. prési Didier Dany Liberté 4 ñi fi ñëw tey awma seen fay vraiment merci beaucoup à tous hey, Didier muy muy muy muy muy muy kooku tey li ma ñoom ñoo xam si bon ci kàddu am ñu ma ñoroo. boo boo boo jabar dëgg ne gaynde ci àll. kii boo boo boo boo ñu ko jaar ñu ko xàll. boo boo boo boo ñu ko fi nga jaar ñu ko. yéen saay dëgg touch. Oh, it's a good song, look at what's it. She is a mom, she's fine. Y'all can hear, y'all can see, so y'all can problem. This, what I'm doing is so gonna cause a problem. This, you're the, the, that's in the story, and you got, this is who's gonna go, my this is the way. Hey, take a pass and knock, what you gonna do, darling? Knock it over, it's the dog, it's the dog, it's the dog, my way, it's the dog. You don't got it, I'm not good at that, I'm gonna get you. Man, it don't get that, it's the life, it's the who's nigga, I'm gonna die. Can I go to house mom? Okay, that's fabulous. Some of that I'm going to tell you. You will get a tongue. I know just the pencil. I just the fire. I can be crazy. I'm so bubble. I'm so bubble. I can't even get anything. And I can't. And I can't. And I can't. And I can't. And I can't. And I can't. And I can't. And I can't. Mm-hmm. I began that is so much, you know, by day. I see you we go. I say no. Uh. I do. Yo, so I could put it. The moment they got, you think they're going to work. The moment they. It's a big one. It's the, it's the biggest one. When you move your pool. It's the, it's the biggest nine. Move your nose. Yeah. Look. You. Me and nose. You. It's the, it's the biggest one. Move your nose. Move your nose. Move your nose. Pull. That's right. You put it on show, y'all. Hey, there's nothing much I can tell on the show. You started getting this stuff. How can you see the new person showing? Это психоатрибут. Эссей. représenter Kaolack. On va commencer dans 5 minutes. Yàlla te mooy fa am pas plus 5 minutes. Sama gars yi, s'il vous tubaab yi ma jàpp si li fa di fa mu toog daa kër gi dëkk kër gi léegi pakk man la jàpp kër gi dëkk mbëri léegi pour a tax la ay maa ngi gën di dox fooy gën a cere ba fi ma nekk dëkk ndox na ñuy gën di wéral jàpp jëm gën a am sa gën a xulu gën yàlla waa yàgg dëkk si taalu boo ay léegi dëkk taalu foofu ne mu mi laa gën tëdd bu ne léew waa doo wa doo bu bor bi dèjà dëkk boolaa soo si bëgg dëkk mu mu dèjà dëkk delloo nga ne du yàgg ngir am ko waa léegi delloo

dimbali di labbali tëdduma yëppi nii dinaa def lu toll nii moo ni ma ndax moo moo ni ma est-ce que indi ko war na la dama tuloon rek lu duma suroon rek ñoo ñu jël ci biir pax bi rek ay yàgg ko lépp yow yaa ngi def di fekk dafa tax di jóg te raat moo ma tax a jóg ay budul baaw jaxle ma xam ni dinañ toog ndax dina dinañ jaxle boobu lu ma yokk gaaw te xam na ci benn point boo sax ci dem moo ma gën a def di fer fii am na rap est-ce que fii am na rap est-ce que fii am na rap est-ce que fii am na rap est-ce que fii am na rap est-ce que fii am na rap yeah fii yeah attaque sa kàddu laa leen ko sa kàddu noor yaa xeexal peuple noir ba ñu soog a toog noor xaa bu sut benn peuple noir ak sa kàddu bu gerte jàppee fàtte bu ñu di gerte ngeen di takk ngeen si di gaale mu ngi tëdd wax Facebook gars yi na jàppee am na dëgg yoo xam ne nekk noonu lu ko taab si turu daw làkkatu loolu ma kéem taab di nga taab daaw nee na nga ñëw doo ko taab wees mu dem yàlla def sa bopp xam yow la taab loolu ay boo la jàng man dama gën jox ndax ma taxaw nekk mbalaw mu bokk ci dama ci toog te tam da doon ko mbalaw mais dëgg di leen kii dama ko mbalaw di laaj pour ñu ko foofu ndax a gaaw ji ya dañoo accéléré ba xam si waa dañoo naaw ja yëpp tax ma gën a ñaaw xam nga fu may mujj mu def ma dafa ñaaw jiw ma su may daab bi ma déglu si ñoom dama def kon waxal ni may diir mbokk yi ñëpp dina ay say sa sa nekk di gaañ waxu fi ma gis taw photo flash gën mu like a star maa ngi flash ci kaw ngi noo ma soppi rab bi ci ci kaw ki nga doon da nga mel ni kaw ci kaw seen ni ma tëkk ese color no si ADP sudah sambung bayan dan yung pati this is the metro I say there now what is city the trigger why your ball city mula na si San Diego mula ko kaya na kay Jamo kontan si Yes that's the boy I I'm not alone. Somebody with a broken number. A broken joy. Sky anomaly. yow sax soo gore aw ma lu may tiit wéy li ko ree jëmm ci kaw yëpp pour nga ngent seen pexe sax mooy say ma ci kamb wow ko ne laa jeex wala ba yaa ko topp ndax di naka ñenn lay ngay toog mi ne toog da lay jëpp ci suuf ma chaque day képp Comment ça, on dit, man? Eh, that's for your family, Isaac. Eh, Isaac, on a dit, allez, premier de vous. Ah, le chef, la gare, ménage, des fois on the press bi waa Aldo ñooy gis noonu ñooy def lu benn braak represent réew mi topic bi bi fële ñu dem ne eh, RV le 4 septembre inchallah wa diraw ku bëgg a amaat show ba mu kenn fekk ñu fo awo ah, chef ci sama ñu lay xaar chatu is kaara wuro yeah isa gudu mo di ka tele me dige wa waxal ko non non وبنات جيع بالبيتنا وغير بسم الله غير التمرين بسم الله وبشكك في اليوم خلصة في اليوم خلصة في اليوم خلصة في اليوم خلصة في اليوم خلصة الناس بيات وبشكك كولت هذا وش لم يشوف تجد لم يشوف وبشكك صعب المدينة joue pour lui. I joue pour mon enfant. Yeah, le bloc. Sama na ci des ka jël préparé jënd yëre bés dugub poulet xapi niw jeew ak jees pay gans julli chrétien ñu fay kontaan may ñu fekk bés bi jaajëfe sunu borom fi mooy gaal seen ñu doon benn ñooy lekkandoo inaanandoo kun diine doon ay annandoo dem si bàyyi yëngal yow xale pétal ko lakk nga jotut bébé de lene juddu na mare bi am fële jaam ñu ko teeru fayal ko jàngaa fay nag ñu doon njëriñu réew ku jug ngi liggéey sunu gaal yàlla yëgal la sa góor sële góor jot na bébé de lene juddu na mare bi am fële jaam ñu ko teeru fayal ko jàngaa fay nag ñu doon njëriñu réew day la ko raas day xaar jéem waay sama maay gees way ñu def nita xale bu xees yàlla fees biir fees day la ko raas day

independent. Living for the next level, I take money. So people take, take money, send that. Then I defeat, beat, get a sale, all around the same. Then you get the Bukhar, money, and the Jaga Jaga, listen, I will lie. Just listen, we started on Janet, Daniel Park, Killer, Born Jaga, get out of there. Jump and fake in the rain, I'm in pep. Send the pop, I will feel a move, yeah, after. My hand for the drugs, and jump and kill. Say, give me program, monetary, damn thing, I tell you, damn, damn. Come be a problem, so you know, boy, come. Come and let the dog be. dinañ la boycott ku mel ni Diome amul problème maa ngi itteel a seen andi corona dem seen ak pàcc ci foo benn pàcc jël ko ñu toog. booy dëgg du ma tëdd naay parce que maa ngi si nekk li may jënd dafa taw rek ma jënd sa wet yaa ngi dégg suñu son fu nga dégg rap bi. donc suñu dund rek ci may ma la waral léegi maa ngi si baax xalaat bu gàtt ma tëdd la fa nga rànd ak bu may sóoru da ngay bokk ba dal gele ak pees. loo bu woote meeting mën la tàkk ndey rap du mën ak yéen ci classique même su may gaanu ay rap booy ku dee si man boo jëkku nga jeex ñaata loo laa ci sur seen carrière maa ngi laaj bet booy ku ndaje sa gat a may jënd bi démb dee la ma naan daan si si du rafet feeñ na fu ne léegi jarul li taxaar bu may séntu da ngay naaje foog nga jël sa xaar. Yes, sir.

kontaan si yéen bëgg si yéen wala bu ñu dee am na ku ñu naan ko ñu dee si ñuul affaire waa Dakar awa sur scène. def leen seen siège ngeen ñëw ñu concert. def leen ngeen ñëw si bopp. def leen seen siège ngeen ñëw ñu concert. ñu concert. beneen bu ngeen mu neex def leen seen siège ngeen ñëw ñu concert. jege si leen si kanam lañ doon gis ñëpp. ñëpp ci kanam ñëpp ci kanam ñëpp ci kanam ñëpp ci kanam jóg leen seen i siège ngeen dëgg si ñëw leen ci kanam. dafa mel ni siège yi ñoo toll nii dëgg quoi. waaw ah, gars yi jóg leen fii rek wala da ngeen liw wala ñu koos ñoo leen ñu koos. ah yéen da ngeen liw jóg leen ñu koos leer yéen da ngeen liw. yow Dakar aar ah yow Dakar aar yow da ngay dégg yow Dakar aar yow da ngay dégg yow la ñu ko wax teer li dafay ay dugal seen i ngeen dégg si dugal seen i ngeen dégg si képp kuy bëggee Dakar aar si yow si di xoolal ok mën naa koy teg man maa koy teg man maa koy teg yow sëñ Matar soo ko xam li ma mën man maa koy teg du si nekk maa koy teg ok yow di jege yow xoos man dama aay dama yor bàttaar di xoos mais du ma tëri man dama tëri di ku ñëw ma woon la man dama wéree di dégg si nañu koo seer danañu koo seer ah ñu dañuy koo seer danañu koo seer danañu koo seer Oh, yo, you look at that one. You look at that one. Big and small, wow, big and dañoo war a joué ji dégg nga ñu ñëw ñu concert. boobu ñoom ñoo ñoo lay jàpp ñu daal di ñaax nit ñi dañu kii ñu leen di pëndal ne sangu ba ngeen set ak te pëndal set pour nga yëfu célibataire la. ah ah ah donc donc. marié sax ne ko place. waaw wax nga dëgg ndax fanaan la. waaye nag ku am jabar fas yéene nga faa bàyyi pour ñëw. dañoo ko fekkee nag. <laughs> waaw beneen wax ne dañuy dem joué ji. lii da ngay dal. waaw bëggoon nañ affaire yi gën a neex. mais. Bienvenue sur Salam Vision.